boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bind abonné bu leen fàtte bés def cloche bi foo leen a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi yamunnu ala man yasaau min ibadihi fadlil azim wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu almulk wa lahu alhamd wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi sante suñu borom di ko gërëm te di ko toroxlul tey ñaan mu saxal ñu si ak njub ñaan mu musal ñu si ay tooñaa di seere ne sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa moo ko yabal ci bindeef yëpp mu ñëw ngir xattali ci xattali na ci ay alkane teg ñu si yeenu jub ñu ngi julli ci moom di julli ci ay saabaam ak mboolam ay ñoñam di ñaan yàlla <clears throat> dolli xéewal ak leer ak barke ci suñu yaakaar seexul xadim radiallahu taala anhu ak njabootam ak ci bokkoom ci taalibam lu ko ñaanal mboolem xam ne moo fi nekkal yàlla nekkal suñu kanam ak rakkam ay di ñaanal mboolem kilifa yi diine yëpp suñu borom dëgëral leen xutba tey bi ñu ngi ko jëmee ci gàkk-gàkk yi nga xam ne moom mooy nekk ci xol feebari xol yi te xol mooy li moom rek moom la suñu borom di xool boo léegi bu ndikkee xol xol lañu njëkk xool bu setee wicc yéen yëpp mën ngaa jar yàlla waaye nag am na feebar yoo xam ne ñoo koy dugg di def ay tomb tomb ñuul ci xol ba ba mujj xol ba ñuul kukk wala xol ba wow moo tax jikko jikko yooyu yu bon la tey nag ñu fas yéene ca waxa waxtaane ci jikko yi nga xam ne mooy yàqu xol rëy ak iñaan ak ngistal ak bañ nit yooyu lañ ci tànn ci nga xam ne ci xol lay nekk te mën a yàqal ab jullit lu bare bare am na ci jikko joo xam ne moom lu bon la boo xam ne yàlla dana ko tere ci alxuraan sax te booba mooy ak ci nit ñi rëy mooy bi nga xam ne moom la moo njëkk am ci mbindeef yi suñu borom bindee suñu maam aadama ba digal malaaka yi ñu su jote ko iblis dafa rëy bañ loola ba tax ñu alak ko kon rëy mooy bàkkaar bi bi mbindeef njëkk a def parce ma sunu borom wàcce xel toroxal ko te boobu moom dafa yaakaar ne ana xayrun minhu moom moo gën moo gën ko ndax moom daa ko kii kii ban rek te ko bindee man nga génne ma sawara kon nag wóoruma ko su jotal kon rëy amul sawara ibnu Mas'ud radiyallahu anhu wax na ne yonent bi sana wax na ne képp koo xam ne am nga tomb bu tal ne farra ci ak rëy loolu tax doo dugg àjjana benn tomb bu tal ne farra boo ko amee ci ak rëy doo moom ko waxee am ko ne ko waaw ñu de doomu bëgg mu rafet ak daal ak daal yu rafet solo daal su ñaan waxaa na ko sunu borom mi bind moom itam daa bëgg lu rafet waaye sol mbubb mu rafet ak daal oto bi taxut taxut rëy nit dana bañ yor dara nekk si mbedd mi te moo gën rëy ka yor loola jikko ju nekk ci xol rek <clears throat> kon teewut nga solo di def lu baax waaye rëy moom ci xol bi lay nekk rëy nag mooy nga bañ dëgg bu la waxee dëgg doo ko nangu wala nga xeeb nit ñi yàlla waxaat ci arxoon na waxaat rabbakum su yéen suñu borom mi na ngeen may ñaan mu wuyu leen yéen jullit yi leen may ñaan mu wuyu leen waxaat rabbakum ni astajib lakum inna lasina yastakbiruuna an ibadati sayadxuluuna jahannama daaxirin mu ne ñi nga xam ne dañoo rëy nag moom <clears throat> sama jaam yi ñoom moom sawara leen jëm yonent bi dafa wax ne bu bis pencee sallallahu ak ñi rëy bu bis bu dañuy tëdd ci suuf nit ñi di leen joggi seen tànk kon loolu <coughs> lu ma tax moytu la moo tax sëñ sëñ Tuubaa wax ne xaqiqatul kibri bi kastil kaafi dëgg-dëgg rëy mooy rafu nafsin mahakat mil aq yëkkat sa bopp yaakaar ne yaa gën ñëpp ba noppi nag dëgg bu dikkee nga laax ko maha taxa sumuñ ak màgg-màggalu wax xamtil xalqi ak xeet mi def yi koo xam ne dangay nga yëkkat sa bakkan doona nga ko wax dëgg mukk ba noppi rëy maanaam màggal bopp xeet mi def yëpp loolu mooy rëy sëñ nag ki rëy nag moomu yées ci jikko yu ñaaw jikko yi ndax moom day yàq diine ku rëy doom diineem ci boppam mooy lay ñàkk bàkkaar yi ci nag mu dikkee moom sa jëf lay yàq waaye du yàq sa diine kon rëy moo gën a bon ci bakkaar yi sëñ bi mu ne li saafara ci rëy nag mooy nga nga xam ne bindeef yëpp a tolloo ñooyam ñëpp ci aadama leen jugee ci ban leen jugee kon waroo jàpp ne yaa gën kenn te it loo mën di def moo xam ne ngay jaamu yàlla mbaa nga am alal mbaa nga am lu ne ba tax nga yaakaar ne yaa kawe nga nit ñi xamoo nga sa mujj fu ñu mujj boo dee ku baax yàlla naan naa na su mujj nga doon ab saay-saay boo dee ko yor alal yàlla man naa la natt mujj nga doon ku ñàkk kon dara wër ta tax ngay rëy rëy wax ne wowal si moo tax iblis ar lu ma tax mu xam ne nit ku ne rek ci xam ne kenn bëgg ko kon jërut ngay réel ca fekkee mujj waatam mooy doon loo xam ne day nëpp ñu soxla ko suuf boo xam ne booy du booy booy gane si ca la ngay jógee kenn du ko bëgg a laal te boo faatoo itam buñ la suulee kenn du la bëgg jege si kooku jëru ngay rëy si àdduna si te ñëpp su suuf la nee na bi nee na ñëpp min tiini turaabi xuliqaa am beneen boo xam ne day feebari xooy la lu ñuy xujbu mooy mooy wa aawlu wala nga nga nga yëg sa bopp ci jaamu yàlla wa la lu mën doon nga jàpp ne li ngay def moom jàmbaar nga ci ba egg nga foo xam ne kenn eggu ci Sëñ Tuubaa mu ne an yaxlama alxaabiru an alxamala laysa lahu li kawnihi musallila wa annahu yumkinu an laa yuqbala ndax jaamu yàlla goo man di def ba góorgóorlu ci ba tax nga naw sa bopp xamoo ba xam jaamu yàlla ko suñu borom nangu na ko déet ndax lii tax ñu gànnu gàntu jaamu yàlla dafa bari kon nag waroo yëg loo mën a def ci lu baax rek xeeb ko ndax xam ne sa diggante ak sa boroom li nga ca waroon def moom defoo ko kon nañuy moytu loolu mooy tam xuj bu mooy nga naw sa jëf doo tarde jumaa ja wala doo dal jàkka ja tax nga nag ah, man de wax dëgg moom maa ko gën a ñu ci des wala nga fokkum jàng xaan ba jàng xasida tax nga yëg ni sa bopp ne yàgg gën a yees loolu loolu lépp da koy tere da nga koy def ca xam ne loo ma loo ci mën a def rek am na kóolug ëppale fuuf ca koo xam eggoo ca moom kon waroo yëpp waroo naw sa jëf te sa diggante ak sa borom itam ni nga li nga ko war a def mënoo ko def mukk kon loo mën di def rek na nga ko xeeb ndax jaamu yàlla bu baree bari ak genn ku genn ko nga gestu tuuti rek ci li ngay jëf mën na ko yàq jaamu yàlla bu bari waaye nga am loo xalaat ne jëf naa lii ci njàmbaar rek mën naa yàq jëf jëpp moo tax mu ne kenn wurta woote ne yàmb yàlla ba tax ne ngay woote ne da ngaa jege suñu borom boobu jàllee somhu tatti yaa ngi def lu baax wala sa nag boo génnee ci mbooloo mi déen wan maa ngi ko def di ko sa bëgg ñu dégg ko di wane ne bii damaa fanaa ne neuf rek jàng naa nangam ci axawaan ay isib naa nangam nooru day la jàng yooyu yëpp nga di ko def ba noppi rek di koy jégal nit ñi ngir bëgg ñu naw la ci loolu lépp islam dana koy tere ndax loolu su réew rek kon ndéggatal sa jëf tam loolu si bi ci topp mooy ngistal foo an yasa an amar riyaahu an yasal fata li xasdi taazim il wara in sabata mooy ngay def dara di ko wan nit ñi ngir bëgg ñu fonk la loolu sax léegi bari na ba murid yi sax moom xamuñu loolu léegi ñu ngi bay fi ne kuy yóbbati addiya ba loolu yóbbu ci sëriñ da nga yóbbu télévision ñu génne ko leeral ko ci yëpp sëriñ bi dafa wax ne booy def lu baax sa loxo tàmmoñ bu mu yëg bu ko lay door bu joxee bu ko tàmmoñ bu njëkk léegi nag adduna lim dafa tax na ba léegi lu waay def ngis sa dugg ca da nga yóbbu ay tivi son jëbi caméra yu ne wax fa ba ne xaaw te fekk yàlla mi tax nga jëf ak sëriñ bi ngay jëf boo ko joxee sëriñ bi de mën nga caa génn bañ koo siiwal yooyu yëpp ci ngis tal la bokk ngis tal ngay def dara ngir jublu caa aw sa bopp wala nga jub caa ndax oo waaye la bokk sëñ mu ne wa ma ñëkkun leen xaw salti faati fii sax yi fa yeewoon aati képp koo xam ne rek yaa ngi def dara war a bàyyee ci xel nit ñi di xool ba xam nit ñaa ngi xool ak sa jëf ci nu mel loola sëñ bi nee na ngistal la naxam walawu xalaa doonte da ngaa nekk sa biir nit sax waaye nag sam xel ngay bàyyi xel nit ñi ci biti loola wéet googee wéet di téewut ak ngistal la fekkee nag li ngay def moom bàyyi woo ci xel nit ñi amoo soxla ci ñu gis ko ñu jëf ko kooku moom dóoratul ngi sal donte da nekk ci biir mbooloo mi am looy joxe joxe ko ci mbooloo waaye bàyyiwoo xel nit li ngay joxe moom yàlla rek sax nga joxum booba doon doon ngi sal waaye boo ci bàyyi xel rek mu doon ngi sal mbokk yi ñu xam ne iñaan itam bokk na ci xeebari xol yi iñaan mooy moom da dangay bëgg nit nit mooy am dara nga iñaane ko bëgg mu ñàkk loola benn mu ñàkk ko ñëw ci yow mi ko ñaane wala na ko ñàkk rek loolu moom mooy ñaan moom daal li yoroon bu dee pal baa muy alal baa kër gu baax na ko ñàkk bu ko ñàkkee nag bu ñëwee ci baan bu nga ñëkk na ko ñàkk rek loolu mooy ñaan yonent bi saa saa wax na ne na ngeen wasaliku iñaan ndax iñaan day lekk aw yiw ni nga xam ne sawara noon lay lekk mat boo tegee ci mat sawara ni muy tàkke ba jeex noonu la ab ku iñaan di def aw yiw ba boo dee def lu baax na fa iñaan sa yiw wa day dem asan sayyidna asan yow wax na ne musuma gisuma tooñ goo xam ne day mel ne kii tooñ ba met day mel ne moo tooñ ki iñaan moom day mel ne mooy gën a sonn ki iñaane ndax ki iñaan moom nit saabu bu nit amee dara sa xol bi day tàng jër boo tëddee sa doo mën naaw ndax iñaan nga bu amee lu bu ko lu mett dalee noonu bu ko lu ko bu amee lu baax itam nga mer ca lool kon iñaan moom kii iñaan moo gën a son fuuf ci muy iñaane ndax toujours moom mi ci jàq njàqare rek saa boo amee ngëneel rek moom fam fam toll day mel ne dañ koo bëggal war a sëñ bi na sëñ Tuubaa wax ne xubbu sawaani nixmatin xan muhtadi wal musamma indahum bil xasadi bëgg xewal bi dañ daal moom mooy ñaan koo xam ne xewal boo am daa yéene mu rek nga ñàkk ko kon ki ki iñaane ni moom foo ko fekk xolam kanamam day tàng xolam di tàng ndax li yàlla def moom du ko ci tàggu te lu yàlla def mu mer loola kon moom itam di ko jum mooy ci ab jullit ak mañeele itam ci xol la nekk moom it bañ nit jaxlul adawati li ahli rusdi bi xayri xaqi sarri xabdul xeqri mooy moom ngay bañ rek fekk ku baax nga bañ ko ngir na mel te teewoo ko ci yoon loolu mooy mooy xaqru sëriñ Tuubaa mooy boo koy saafara nag wa daaw xaqraka bi kuhihi kama takarahu tafakal xabiha taanama fexeel ba saafaroo ko ni nga ni nga ni nga ni nga bañee am jikko ju nekk si jëm daal noonu ngay bañee caq la nekk ci ce te kan ka gis mu mel noonu da ko ñaanal su mu fa nekkut te da koy yéene aw boo ko defee rek bu yàggee iñaan ngi dañ mbokk yi ñu xam ne sunu borom du xool ay melo du xool ay yére lu muy xool ab xol ak jëf kon nag naan fexe ba xol yi ak jëf yi set sa ndax kat sunu borom moom benn xo benn xolwaay la am nit mooy xolam bu ko xoolee mu set mucc liggéey yëpp yéwén waaye bu ko xoolee mu taq rek xamal ne liggéey yëpp du sotti moo tax isaa salaha salaha al jasadu kulla wa isaa fasada al jasad fasada al jasadu kulla xol moom bu baax bu yéwénee rek sa yaram yëpp baax waaye bu yàqoo tam lépp yàqu ndax mooy fi sunu borom di xool ila man atallahu bi xalbin salim bu pencee ñu indi xal bu mucc rek ñoom la sunu borom di bàyyi ñu yàlla ñu xam ne xol mooy barab bu yéene itam te yëf ci yéene la ko sunu borom di nangoo ndax moo wax ne innamal ahmaalu binniyaati kon xol lu am solo la ci doomu aadama moo tax sëñ wax ne asxab anil qalbi riyaan ka xatat wa tusbil kibra li tuslihal jasad mu ne na nga génne sa xol ngistal génne sa xol iñaan sa génne sa xol rëy boo ko defee rek sa yaram wi dana yéwén sa lépp day baax lin bi tawaaduhin wa asib xutba wa mata kiig si fan na xutba mu na ngay toroxlu foo toll ci bañ a rëy na ngay tuub sunu borom itam boo ko defee sunu borom dana la wuññal ciiraay yi xud lil ilaha bi nasihati shiwaak wali rida rabbil baraya xut xabaak na ngay léeb laabiri nit ñi ci sunu borom ku dul jaw rek boo gisee xam lu baax da ko teg ci yoon di ko wamat jëme ko ci sunu borom lillahi sir bi ahsani al xaqaayid waxtaan yi wal ixlaas bil fawaayid na ngay dox jëm ci pas pas pas yi gën a wóor ci gën a rafet ci jëf ak ci sellal bil fikri fil xayri was di sanni tafoosu bi nóori wa xayri mën ni ci xalaat lu baax ak rafet njort ci ngay amee ak leer ca ci sa ci la yokk kon mbokk yi nan góorgóorlu war ba ñeent yu ñuy wax kibru ak xujbu ak sumxatu ak riyaaw ak xasadu ak xaqadu juróom benn yooyu yëpp ci xol lay nekk rëy ak yëg sa bopp ak ngistal ak iñaan ak déggital ak soxor yooyu yëpp feebaru xol la yoo xam ne mën naa yàqu xol ndax bu ci ne boo ko amee ab tomb lay def sa xol bu ñuul bu tomb bi baree nag day mujj xol bu ñuul kukk doon xol yi sax nag waa xol bi daa ñuul loolu moo koy waral nag kon nan nañ ci góorgóorlu bu baax ba bay yéwénal suñu xol yi allahumma ahfasna bil islami qaima wa ahfasna bil islami qaahida wa ahfasna bil islami raaqida wala tusmit bina aduwan wa xaasida allahumma inni as'aluka min kulli xayrin xazaa'inuhu fi yadika wa a'uudu bika min kulli sharrin xazaa'inuhu fi yadika boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abone bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyeekoo